Euh, dama jàpp ne euh, bu ñu waree lever immunité parlementaire député ñun collègue am yi dañu war a xam dossier bi lan moo ci nekk mais lu ma constaté mooy chaque fois bu ñu lever immunité parlementaire collègue député yi bari du duñu xam dossier bi lan moo ci nekk te nit nag balaa ngay mën a jël décision pour lever war bañ a lever da nga war a xam ku ñuy tuumal la lañ ko tuumal mais boo amul accès ci information yooyu ñi ñëw rek ne la dañu war a lever wala waruñu lever nu ma ko bañee woon ak député opposition ne laa koy bañee ak ku nekk tam euh, majorité mooy il faudrait que Sénégal ñu xoolaat suñu processus de levée immunité parlementaire parce que dañ ko banaliser député balaa ñuy lever immunité am ay collègues am yoo xam ne ñoo war a voter pour lever immunité am dañuy war a am dossier bi xam lan moo nekk ci dossier bi xam lan lañ leen incriminé man loolu laay ñu xamee nag ñoom war nañu mën a tànn ne dañuy lever wala duñu lever mais boo xamul ñu ñëw ñu dañuy lever commission bi wax na te yow mii toog di lever l'immunité parlementaire sa collègue yàlla xam na ni yow xamoo luñ koy luñ koy incriminé. donc loolu bu amee ma jàpp ni lu gën a responsable mooy ma abstenir bu ko majorité bu bëggee def processus processus boo xam ne ñoom ñoo ko defal seen bopp nañ ko defal seen bopp mais il faut que xoolaat encore mbir yi député poste député du poste caaxaan député dafa war a ne koo xam ne balaa ñu koy yóbbu si justice balaa ñuy lever immunité am nañuy may possibilité naataangoo bi ñu xool dossier bi lu ci nekk comme saa ku ci nekk booy voté wii nga voté en toute liberté connaissance de cause booy voté non nga voté en toute liberté et connaissance de cause mais boo xamul dossier ne la nga voté parce que nit ñi ni ñoo waxtaane na il faut ñu lever sa immunité man dama ne principe boobu nu ma koy xeexee ak opposition bi noonu laa koy xeexee tamit ak ku euh, ak ku mu mënta doon l' essentiel que principe bi foog ñu xoolaat ko.